Ah. xam nga li eh, lu may fàttali ko mooy bis ba ma lay labat te sa baay di la gërëm bay jooy <laughs> waaw waaye ngërëm loola day ah gis naa ko ci kër gi de ndax ba nga ñëwee ci kër gi ba suñ genn yàlla tey jii waañ wa yaa ca gën ba yaa ca gën sama kelka yaa ca gën la gën a neex ba neex ma nag ba neexaatoo mooy dangaa yem fa ma la yem boole ko jëloo sa tànk bi nag nday la ko tali bi rek baa nga nijaay lekk ko di barax barax nekku sàcc na ko yàlla fu ne nga dugg fa boo ko defoon kay jaaxal ma waaye am nga sa dignité sa fulle sa fayda sa comportement sa capacité ak sa personnalité ba kenn yebu la yàlla na ngay maam doom. nijaay daal yow daal nijaay da baax rek nijaay yow yaa tax namuma dara koñ bi ma lekk fi ñëpp a ma ñee namuma dara li nga gën a bëgg nag laa lay toggal muy ceeb bu weex bisaab suul dafa la ci soos bu xonq bu neex maa ngi ñëw. waaye <laughs> eh, moom kay damaa war ne kàddu bari dëkk. xar bari seytaane guy mënul gaal nga yett ko mu toj nga wer ko mu vett nga def ci ndox mu tuura samba kor mbaay <laughs> waaw fulla rek am tax nga saf ma danga am fulla jigéen ne am fulla waaw danga am fulla ak fayda ak ñàkk fulla ak ñàkk yow lay dimbali ma yow ku la kor ne sa moustache yi di saf yu muus sa verre yi di saf yu kaña yow yaay kan nit day am dignité boo déggee ñu ne dalan euh, galanterie galanterie kan moo ko moom góor gu galant. Eh, eh, eh. ni yow dama bàyyi defante kii. xam nga lu ma bëgg yow nga réglé ngay saf ku dëppoo geenu fas sa nilon maytul taal boobu balaa ngay tàkk ci kawam balaa muy takk ci sa kaw yéen a ngi tàng sax sama xol bi dama la faale xam nga lu ma bëgg. nee na dalaa déggal nee na non ñun xam nañ lépp xam nga lu ma bëgg. maa la man maa la ëpp doole ëpp law fit nit ñi dañ leen di ëmb juróom-ñeenti weer boot leen ñetti at boole ndax ak nàmpal bàddali ñaar fukki at ak lu topp waaye yow xam nga ñaata weer dañ la ëmba juróomi weer ak xaaj ak xaajaat yow xam nga yow prématuré nga matoo xaaju xaaju gen waa libar dóor la fii ba nga nërmeelu keneen ku ko koo yaakaar ma def ko nu ma la def. yow kat samay 18 waaye bu ma la bàyyee ca kaay nga jëm kat. doo fi dugale bii nag. yow saa su fi. eh eh fëccee. ay góor. fëccee góor ba ca yàq ba góor. waaw. gis nga nag jooja. jooja. ma ki ni may def ak yu tëlimam yi. man yow laay wax. Ndiaye Thiam. jooja ñun danoo ne ci weeru koor. Ndiaye Thiam baal ma àq. Thiam ah? dogo faaleeg maa ba joor Kumba Samba yaay jaloor dogo dogo dogo ba fu ma tayee bàyyi. yow da nga am personnalité. te weeru koor àndul ak biir wi. dëgg la yaa ngi dégg. dëgg la te mbaay nga sat. dëgg la sàngo ne biram jigéen daa ngo ne mat mbaay. <laughs> mbaay <laughs> caam caam dog caam dog gis nga lii waaw mbay seen euh, moo ma jox kii mbay seen ñeenti ginaar la seen caali dem ba seen yëkkati xaalis jox man ndéem ndéem danoon ne ci weeru koor na kër gi niin ay waay na nii ne day nii ne te mbaay xanaa loo gàtt gàtt gàtt not dégg li waykat bi wax lu mu wax nee la ngéwél hmm. amul xuloo amul xeex joojo matal joojo mer ko yàq ah <laughs> eh? waay waay waay jooy naa njaay doos njaay lu ma sa wax rek téere la njaay doos ne benn joxoñ joxoñ benn baaraam nee na kooku ab joxoñ la waaye juróomi baaraam ñu naan mu ne waaye la waay. bi daay nijaay ko dëgg. joojo naam ku say baaraam kuuñ. Mm. na yelwaan xaw. Salamit Salamit Salamit waroon nga maa gaaj waroon nga maa gaaj waroon nga maa gaaj bilaay bu ngeen ma gaañoon xam ñu may def